te mu may ñu ñu mën koo moytu ba dee ci ñàkk caaxaan ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala sax ci sunna bañ caa benn yoon bañ koo génn benn yoon ñoo ngi ñaan allah subhanahu wa mu dekkal ñu ñu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci ca àjjana lu ko yomb la yàlla nañ ko yàlla defal alhamdulilahi rabbil alamin euh, maa ngi fàttali sam bopp di fàttali ñëpp ñu gën a góorgóorlu ci suñu wàllu diine ndax àdduna dafa jeex ba pare jeexu àdduna nag li muy tekki mooy jullit bu nekk war naa waaroo ci ay jàngale yonente bi sallallahu alayhi wa wa sallam bokk na ci xam ngeen borom bi subhanahu wa ta'ala ku bëgg jaam ñi la waaye na jullit ñi yàlla subhanahu wa ta'ala dafa wax ak ñun ci benn aaya aaya boobu am ñaari mbir mbir bu njëkk bi xabar la bi ci topp nekk amr ci aaya boobu borom bi wax mooy inna ash shaytaana lakum adu fattaxizuuhu aduwa inna cheytaana lakum adu ñëpp xam nañ ñi xabar la yàlla daf ñoo xabaar bi ñu wax ni cheytaane seen noon la nit nag bu fekkee ñor mi ngi ci yow nga xam ni kii sa noon la daf lay yàqal sa réussite ëllëg la jaadu woon soo ko mënta noonoo nga sori ko wala nga daw ko wala nga bañ a ànd ak moom te ki ñu njëkk a xamal suñu noon boobu mooy yàlla subhanahu wa taala inna shaytaana lakum adu yàlla nee na iblis seen noon la pexeem yépp mooy mu yàqal leen ndax teraanga bi mu amoon daf ko perte ci ñàkk sujjóotal aadama ba ñàkk teraanga ñàkk teraanga boobu moo tax nag dootul bàyyi ba ba muy dee jamono bu nekk day bëgg ko ànd ak moom dem safara te nag mi ngi koy réussir de ndax ñu bari ci mbindeef fii illa man rahimallah ñu ngi topp seytaan léegi nag amr bi nga xam ni moo jóge ci borom bi ginnaw xabar bi mooy fattaxizuhu aduwa loolu ndigal la ñun ñëpp la ko yàlla digal seytaane seen noonu la def leen ko noon xam nga bu waxoon ne seen noonu la day doy ñun ñu war koo def noonu bu leeroon ni seytaane ñu noonu na te leer na rek dafa doy sëkk même bu wax bi àggul ñun dañ ko war a def noonu borom bi teg ci ne fattaxisuhu aduwa jàppante leen ngeen jàppee ko noonu ndax daf leen di yàqal xeexam nag moom seytaane bi jeex bokk na ci li ñu bëgg waxtaane tey muy fitnatu masih dajjal nga xamante ni hiya aadamu fitnatin ala wajhi fitna bi gën a rëy ci kaw suuf mooy fitnay masix dajjal li ma fàttali loolu tey damay waxtaan ak benn nit mu ne ma ustaas fitna yi dafa bari lool jamono bi xaalis amut réew mi metti na nangam nangam ma ne ko waxoo fitna ba léegi de wala bu dee fitna it yu ndaw la mu man ko man dama jàpp ni fitna ku koy wax rek bi yonanti yi gënoonu tiit moom nga wara jappé bi gën mak xamni yonanti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxna ci hadith bu wér mune ma bayna khalqi adama ila qiyamis saa amrun akbar wala a'zam min fitnati masih dajjal kon do defena amatul ben fitna bu gën reey rëy nee bi yàlla bindee aadama ba àddunay tukki amul fitna bu gën a rëy masiixu dajaal kon fitna boobu moo gën a rëy ci kaw suuf masiix dajjaal nag fitnaam dafa am ay murasalaat dafa am ñu muy yebal avant muy ñëw te ñoom ñëpp boo leen boolee ci njabootu iblis lañu bokk ki ñu yàlla waxoon nañ ko jàppee noonu ki mu ñu waxoon ni fattaxiduhu aduwa ci njabootu iblis la bokk moom masiix dajjaal moom nga xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadiis Nuwas ibn Sam'an ñëw na ci it xadiis Abu Dar yonente bi sallallahu alayhi wa amul benn yonent bu yàlla yónni lu dul wax nga sa xeet nañu moytu fitnay masiix dajjal li tàmbalee ci Nuux ba ci Isa amul yonent bu ñëw lu dul loolu defal lu dul nga defal ko problème bu gën a rëy ci kaw suuf kon bu fekkee al anbiya wa rusul ñoom ñooñu nga xam ne ñoom la yàlla yónni woon ñu xamoon lu bari kenn ku nekk ci ñoom bu doon wax fitna bi gën a rëy dajjal lay joxoñ du joxoñ keneen te insha allah bu ñu dajjal leeree tuuti rek dinañ xam li yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax kon fitna bi gën a rëy ci kaw suuf mbokk yi mooy fitna masih dajjal bokk na ci jullit bu nekk jullit bu nekk dafa jaadu su jullee ba pare balaa sëlmal mu muslu ci fitnay dajjaal laaj ñaa ko ci benn jàkka benn jumaa bu mag ma def ci waxtaan laaj ko bi ñu paree paa imam bi ne oustaz dama bëgg nit ñi kenn par kenn ñu wax ci loolu mais yàlla xam na ko seize personnes laa am ñu mën ñaan boobu ngay ñaan ci avant ngay sëlmal allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ومن عذاب جهنم ومن فتنة المهيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال te wallahi tey boo wóorum julit ñu bëri ñi koy def ci taaye bëriwut ñi ko ciy def bëriwut de ñi ko ci xam bëriwut ndax julit ñu bëri dañoo jàppee ne julli boo amee wa ala ibadillahi salih ndek sëlmal doy na sëkk lépp dañu koo yombal nga xam ni am na ci yoo xamante ni dafa teeraa teer ba bu ñu la koy jàngal booy doog a dugg ci mbir la mais bu yàggee war ngaa xam mbir moom yonant bi da doon sax saxaaba yi di leen waxtaanal ci dajjaal ci mbir yi nga xamante ni yonant bi nee na sallallahu alayhi wasallam nañ koy muslu benn bu ci nekk bu rëy la bi ci jiitu mooy azabul qabr yàlla maa ngi muslu ci yow nga musal ma ci mbugalu bàmmeel mbokk yi mbugalu bàmmeel kenn du ci mucc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na law najja ahadun min dammati alqabr wa fi riwaya min adab alqabr la najja minhu sa'd ibn mu'adh xam ngeen sa'd ibn mu'adh mooy sayidu bani ansar nga xam ni saad dafa baax ba bi mu génnee àdduna yonent bi dafa jooy mu ne ihtazat arshu rahman li mawti sa'd kon ku gën a rëy saat ci sahaaba yi bëri wut saat moo jiite woon ansaar yépp bokkoon ci aws saad ibnu ubaada bokkoon ci xasraj saad ibnu muaad moomu nga xam ni ci xare lañ ko fettee ñu fett ko ci pooj keroog bi muy ñëw mbaam bi mu waroon ñu teg ko ci yaram bi naaj masjid rasul mi ngi fees dell yonent bi seen ñuy indi saad muy ñëw xam ngeen ni ñi gaañoo ci xare yépp ci masjid rasul lañ leen doon faje bi ko yonente bi séenee muy ñëw ci la wax sahaaba yi ni xuumoo li sayidikum xuumoo li sayidikum boobu mooy jóg leen may leen ko mu ñëw ndax kii mooy sangu ansaar saad ibnu muaz moo waxoon yonente bi salaa sallam ci xandax bi yonente bi laajee xalaat nga xam ne yéefar yi bett nañ leen ci xisoor leen ba génn jafe yonente bi laaj xalaat waa muhaajiruuna wax yonente bi noppi kenn ku nekk nañu xeex shabab yi ne nañu xeex yonente bi xam na ne biir madina lañ leen bett te bu ñu xeex ak ñoom kër yi mën naa yàqu mën naa lakk yonente bi di xaar ordre ordre bi gën a mag ginnaaw ndigalal borom bi mu ngi ko war a jëre ci waa abou bakr wax umar wax kibaaru sahaba ñëpp wax yonente bi noppi rek waxul ba ci ak saadu bnu muaas ne ko laallaka ya rasulallah taaniina dafa mel ni nag ñun ngay xaar ñun waa ansaar yonent bi ne naam seen xalaat laay xaar saad ne yonent bi wallahi madina ba ci biti bu nekkoon géej munuñoo jàll danañu dox di feey suñu mënul ñu rey suñu gélé yi tegle mbàq yi di ci dox suñu mënul ñun ñëpp ñu dee ci biir wallahi yonent bi sallallahu alayhi wasallam duñu la wax mukk li banu israil waxoon muusa idhab anta wa rabbuka faqatila laakin dañ lay wax ni ñu ak yow ba dee yonent bi doo ko kontaan kooku mooy saad yonent bi nee na bu kenn doon mucc ci mbugalu bàmmeel saad da ciy mucc waaye bi mu gaañoo yonent bi nee na bàmmeel nag na ko najaat ko ba mu tiit mu dog ko bàyyi dumma ilayhi summa ruuxiya mu doog ko bàyyi kon adabul qabr boobu nit ku nekk da cee war a lu jamono bu nekk ndax mbugalu bàmmeel bàmmeel mooy premier kër ci këru allaaxira yi fa man naja minhu faqad naja wa man lam yanju minhu fala yanju abada képp ku mucc ku réussir ci première dugub bàmmeel neex na ba faw waaye ku ci échoué sa dara dootul baax nañu la jàngal kaamil nañu la ñaanal nañu saraxe nañu nàkk nañu def lu nekk nañ ko def waaye première bàmmeel yonent mel ne alqabru awalu manzilin min manazilil axira mooy premier kër ci këru àllaaxira su fekkee dal nga fa ak jàmm jàmm la boo fa daleeg ay ay la kon bëggalu bàmmeel boobu kenn ci ñun mucc baaxee woo ko ba baax ndax kenn ci ñun du baax ba dab saadu du mu am kenn ci ñun du am teraanga ba dab sahabatul kiram moom saad nu tiit ci biir bàmmeel kon ñun nan la ñuy def nan la ñuy def ñaareel bi nga ni yàlla maa ngi lay muslu min azabi jahannam mbugalu jahannam mooy ñaareelu mukkulaay bi jahannam kër la gu doy waar goo xam ne dama koy jéggi ba beneen yoon ñetteel bi min fitnatil mahya wal yàlla maa ngi ñaan nga musal ma ci fitna yi dund ak dee fitna yi dund ak dee ñaari mbir la bi ci jiitu moom mooy dajjaal ñaareel bi mooy dee ci kufur yàlla nañ ci yàlla musal benn ci baaxul ndax xam ngeen ni mujjug doomu aadama moo ëpp solo ci dundam kon yàlla ñu yàlla may mujj gu rafet nit lu dundam metti metti buy dee wax kalimatay shahada wala lu ko nuru pertatul waaye lu mu neex la neex la ci kaw suuf dee tuddul kalimatay shahada neex leetul ndax dund gu fii day jeex dund gu fële dafa sax ba faw wal axiratu xayrun wa abqa kër googu moo sax te du jeex mu mujj nag ومن شر فتنة المسيح الدجال كل النيكو يا نتي بتجي ومن شر لنجك واخ تي أيو فتنة مسيح الدجال كون ياري مير أمنا فتنة أمنا أي مم دجال أمنا فتنة أمنا أي كون يا نتي صلى الله عليه وسلم نينا يا نتي بيا يوني وارنا خيتم تي دجال waaye man dinaa leen wax lu leen benn yonant waxul ci dajjal sahaaba yi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kan mooy dajjal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dana génn ci mujjug jamono bu fekkee muy dund ana xajiiju kulli muslim man dinaa défendre bépp jullit xeex ak moom te dinaa ko duma gaañ daan ko waaye bu génnee wa in yaxruj walastu fiikum famruun xajiiju nafsi bis bu ñëwee fekk man ma génn àdduna kenn ku nekk yaay garanti sa bopp allahu akbar kenn ku ne yaay xeexal sa bopp yàlla ñu yàlla may ñu mucc ci fitnaam kenn ku ne yaay xeexal sa bopp mbokk yi baa xeex ak dajjaal yomb na nga xam ne bokk na ci ay muraasalaatam yi muy yabal bokk na ci balaa moo ñëw jigéen ñi dañuy yàqu jigéen ñi dañuy yàqu dootuñu sol yére ñu dem ba da nga romb jigéen ak góor ñu sëy ci digg mbedd bëccëg la taqumu saa illa an yatasafada annas fi turuqat fatasafud albahaim فيقول أمثلهم لو نحيتها عن الطريق قليلا لا إله إلا الله يعني من أنا أدنى تكي lu dul góor dana këf jigéen ci diggu mbedd bëccëg sëy ak moom ñëpp di ci teg bët ku ne day romb dem yoonu kenn newu ci boo waxee non non non ak sama yoon newu ci ah maandu leen maandu leen xam nga ñun lu mooy suñu feebar bi gën a rëy ci kaw suuf loo wax ñu ne maandu leen maada yaani maandu maandu mooy dangay ngay noppi nit di bàkkaar loolu du maandu maandu mooy da ngay noppi nit di teg gi sunna loolu du maandu maandu mooy da ngay noppi doo wax yàlla nee na léegi boo nee yàlla nee na ñu ne maandul boo nee yonent bi nee na sunna ñu ne mi ngi xeex tariqa yi boo nee yonent bi nee na ku deful lii doo dem àjjana ñu ne mi ngi xeex mag ñi kon léegi ay buntu la yoo xamante ni iblis moo ko kase ba boo ragalee yow daay bi dootoo wax ndax day dem ba léegi bis boo waxee dëgg olof nee na bu dëgg réeree ci penc ñu koy wër saay saay bu mag moo ci toog li muy tekki mooy bu demee ba loo wax muy dëgg léegi mu nekk lu dëng ndekke dëgg léegi day tumuranke tumuranke dëgg nag mooy tax boo waxee dëgg mu mel ni da ngaa tooñ loolu lay nuru léegi dafa dem ba boo nee yàlla nee na yonantam nee na rek kenn ku ne commencé tiit mag ñi lay dal de sëriñ si lay xas de moom kay moom nii rek la ñuy def moom nangam moom nangam moom nangam ñooñu nag ñooy shayatinul ins ci murasalaatu dajjal la ñu bokk ci ñi dajjal yebal ci kaw suuf la ñu bokk ñooñu mun na nekk koo bokkal ndey ak baay mun na nekk sa papa bi lu jur mun na nekk sa jabar mun na nekk sa frère da ngay taxaw ne yàlla nee na mën a diw maanul diw bàyyi moytul fitna diw ragalal diw nangam fekk xamul fitna laysa jàmm keroog nga ni yàlla nee na yonentam nee na fexeel ba bul tooñ keroog boo ci dee yaa ne ci dëgg loolu nag bis bu tasaaroo comme ni mu xewee tey mooy jigéen ñi danañ génn ci biti ndax loolu amut mbokk yi am na bokk na ci murasalaatu dajjaal tasaaroog nguur jigéen bëri na tey yéen a ngi dégg ci rajo bi ñu ne góor jigéen ñaa ngi réunion ñu ngi wax naan nañ leen votel ensemble pour ñu sëy seen diggante subhanallah luñ doon wax sénégal dëkk julit lañ doon wax ku wax Sénégal ñu ne dëkku sëriñ diw dëkku sëriñ diw Sénégal dara du fi am senegal nangam mag ñi fi tëdd ñuy seetaan ba sénégalais yi di nekk ay góor jigéen bëgg ñu daganalal leen sëy comme na ma amee Europe wal iyaadu billah loolu ci murasalaat yi lay bokk bokk na ci murasalaatu dajjal tasaaroo sàngara sàngara day tasaaroo gox bu nekk waaye bokk na ci murasalaatam bidaa day dugg ci kër yépp lay dugg amul néeg lu dul bidaa dina fa dugg amul ruq lu dul bidaa dana fa dugg te benn bidaa bu nekk day rey sunna bidaa bu jóg rek benn sunna day la ci wetam loolu ci murasalaat yi la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ne ko waaw bi kon day fitnay dajjaal doy na waar mu ne leen waaw fitnay dajjaal day lu doy waar la waaye nag képp kuy góorgóorlu ci yéen كوي غور غور لتيين دي جانغ أول سورة الكهف ولا آخر حديث أمنا حديث بو خمني سند بأمنا دعف سند بأمنا دعف مي دعف سند لا مي نيكول تي متن بي أمنا يلن طريقة يو خمني تني ويرنا بنواك ابن تمعان ويرنا صحاه الألباني كون نفك نك مكوي دجال موي فتن بي غير مكتك وصوف يرنتي بي صلى الله عليه وسلم نينا دجال بنيوي مومنا موي پريمير آيات تي أسرات الساعة الكبرى li ñuy njëkk gis ci jeexuk jamono ci xibaar yu mag yi mooy fitna masiixu dajaal masiix dajjal yahud la yahud la ci yahudi isbahan la bokk perse lay nekk mi ngi jóge côté Iran foofu lay génnee am na yeneen riwaayaat yu wax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis na dajjal gis na ko moom ak benn sahabaam turu saxaaba lay fàtte laana dinaa ko fàttaliku léegi insha allah kenn ci saxaaba yi ki ko fekkoon ci naxlata la fekk na ko foofu yonente bi wan ko dajjaal riwaaye boobu wéru waaye ala kulli haal yonente bi nee na dajjaal yahud lay nekk dina ànd ak juróom ñaar fukki nit ci yahud yi benn riwaaye am riwaaye boo xam nee na juróom ñaar fukki junni dana ànd ak ci yahud yi ñu sol ay manteau yu ñuul ay faylataan yu ñuul la ñuy sol bu ñu ko solee nag seen sikki mi day gudd weex ñu ànd ak dajjal am na benn riwaaye boo xam ne daf naan dañuy wat seen sikki moustache yi gudd léegi dajjal moomu sahaba yi laaj yonent bi ne ko ma israuhu ya rasul allah dajjal bu ñëwee nan lay gaawee ndax yonent dafa waxoon ni ma min baladin illa sa dajjal illa makkata wa madina amul benn dëkk ci àdduna bi lu dul dajjal dina fa dugg ba mu def makka ak madina lolu mbiru yàlla la yàlla la neex makka ak madina dong la dajjal du dug sahaaba yi ni yonente bi lan motax mune amul ben montagne ci makka ak madina ludul malaika yi danañ fa taxaw yore ay jum ngir bu dajjal ñoy ñu tal ko motax ñaari dëkk yi rek la dajjal du jaar allahu akbar bu don sa sagu nga dem dëkk fa mais yalla ci dele su neexon yàlla mu def ko fouta ba mu def ko sin lu ci nit ma su ko neexon mu def ko jolof mba kajoor mais li la yàlla tànn moo xam secret bi tax mu tànn ko def ko kon loola la muy tekki mooy yonent bi makka mooy dëkku judduwaayam madina mooy dëkku génnukaayu àdduna makka mooy bërëbu tawhidam madina mooy bërëbu am kon yooyu keemaan la ci keemaanu yàlla subhanahu wa léegi nag dajjaal yonent bi nee na dana yàq kaw suuf yàq bu jéggi dayo li muy njëkk a def bu génnee dina rey benn xale bu góoru jullit bu ñëpp xamoon ni kii jaamu ko te yàlla la bu dajjaal ñëwee yoreb jaaseem yonent bi nee na seetlu leen bëtu càmmoñ bi day fatt jëbi dañ cee bind kaafir ci riwaaya bu muslim riwaaya ahmad ñu dagg ko kaaf fa ra yonent bi nee na yaqra'uhu kullu muslim jullit bu ko seen di ko mën a liir moo xam nga jàng wala nga ñàkk a jàng di mën a liir kaaf kafaara yaani kaafir léegi nag loolu li gën a doy yonent bi ne bokk na ci fitnaam lahu nahraani dafa ànd ak ñaari dex benn dex bi ndox mu sedd guyi la benn dex bi safara buy tàkk la keroog nit ñi dañuy tiit mar yonent bi ne sahaaba yi bu ngeen gisee ñaari dex yooyu day woote ndax xam ngeen turu dajjaal mooy fenkat naxekat day jël dëgg nëbbee ko fen nee na bis boo gisee safara bi keroog bu la nee naanal naanal ci safara bi danga nga fekk mu nekk ndox mu sedd azbun zulaal waaye bis boo gisee bu sedd bi nga dem ci loola mooy safara kon dajjal léppam dafa kasew yonent bi sallallahu alayhi nee na mu woo xale bu góor boobu ñépp dégg turam mu ne ko diw diw ñëw ba taxaw ci wetam dajjal jël jaatam gor ko ci digg bi mu xar ñaari dàll benn fii benn fee nit ñi yuuxoo tiit mu woowaat ko ci turam mu dekkiwaat siggi bi mu dekkee siggi jaar ci turam fitna boobu ñu bëri ci la ñuy toppee dajjal mbokk yi bu ñu delsee ci suñu réew mi ak suñuy xuraafaat lu mel noonu bu ñuy ñu sénégalais kéemaan rek la gëm boo luxusee sax ñu ne boroom xam-xam la boo njabaree ñu ne wàlliyu la te loolu du dara njabar ak luxus du dara mbon ki gën a bon mën na ko parce que dëppug seytaan nag wa qayyadna lahum qurana ànd ak seytaane yu bon la rek léegi nag li ñuy naxee nit ñi ab nit day toog fii def lu la leer ni luxus bu leer naññ la sihir bu leer naññ la ñu ne sëriñ diw kilifa la xool ko li mu def xoola li mu nangam xool li mu nangam bañ nañ ko ba suñu marché yi luxuskat yi ci la ñuy lekkee xaalis dañuy taxaw di luxus nit ñi di taxaw di seetaan nit ñi di joxe xaalis da ngay gis kuy jaay garabam di lu xuf nit ñi di joxe xaalis nga gis kuy jël làmmiñam di ko dagg nit ñi di yëm waaw yu mel noonu bu yëm nit ñuy gëm kee dajjaal bu ñëwee gor nit ci digg bi mu ne ko yaay sama borom ndax ñëpp duñ ko topp moo tax ñëpp dañ ci lañ koy mujj toppee nag bu ñu ko toppee nag léegi noonu la dajjaal tàmbale yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dana wax asamaan tawal asamaan si taw mu ne suuf meññal suuf meññ mu ne ana rabbukum maay seen borom bu ko defee rek ñëpp ne ko anta rabbuna yaa dajjal subhaanallah wal iyaadu billah yàlla nañu yàlla musal ci fitna boobu mbokk yi fitnay masiix dajjal fitna gënu koo rëy ci kaw suuf mbokk yi fitnay masiix dajjal bokk na ci képp ku mu àndal safara la jëm ak yow la sakka képp ku ko gëm safara ngay ànd ak moom su ko defee nag yahuud yi ñooy ànd ak moom yahuud yi bu ñuy ànd ak moom nag dañu koy jàppale ndax seen mission lay doxal seen mission boobu muy doxal nag képp ku gëmoon yahudiya da nga ci topp ku gëmoon adduna da nga ci topp ku daawul jaamu yàlla da nga ci topp ku daawul jàng alquran da nga ci topp ku toppul woon ci sunna da nga topp dajjaal ku sunna leer woon sa bopp da nga topp dajjaal mbokk yi nañ leen jàngi sunna mu leer ci suñu bopp sunna mooy li mu muhammad jëfee sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla lu mu rëy rëy bu ñu la ko naree defloo laajal nanu la ko yonent bi defee laajal de balaa ngaa def laajal de julli la woor la saraxe la dem jàkka la def leneen la laajal neel kat jaamu yàlla kenn doyu ci yàlla ku dul muhammad sallallahu alaihi wasallam mbinde fi li ñuy bari bëri bëri muhammad dong nga ci doy yàlla mu tànn ko yemut ci yàlla joxaat ñu beneen xabar ndigal topp ci am ngeen royukaay ci muhammad kon mbokk jullit caaxaan lu mu rafet rafet sa kanam bu mu la gënal sunna sunna mooy taar ndax ki ko indi moo taaru sallallahu alayhi wa sallam te fitna bii di ñëw nii mucc ci yombut xaw ma tey la xaw ma suba la xamoo kañ la ala kulli haal xam nañ ni dajjaal dina ñëw te ñëwum boobu muy ñëw ci kaw suuf yàq ga muy yàq dëkk bu nekk dana fa dugg kon préparel dana ñëw ci sa dëkk waa ndax dangay seetaan sa njaboot bokku ci da ngay seetaan say jabar bokku ci da ngay seetaan say doom bokku ci dangay ngay seetaan sa doomi réew bokku ci dangay ngay seetaan ñi nga bokkal pas-pas bokku ci déedéet kon su boobaa la jaadu mooy jàngale sunna mu leer ci bopp yi sunna nag iblis da koy xeex ba foo ko waxee mu oyof toy day oyof foo ko waxee mu oyof tey maa ngi ci am benn nattu suñu benn way jur génn àdduna suma xarit papaam mu dénkaane woon ñëpp di ko dégg mu ne bis bu ma génnee àdduna oustaz ma Sall na ma jullee na ma sang na ma sang na ma toppatoo na ma jébbal sama borom comme ni ma ko defalee ay papaam mook yaayam ñu woo ma démb wax ma ko téléphone ma ñëw bi ma ñëwee lépp ñu bàyyi ko sama loxo mbokk yi ñëpp ànd ci mais biñ demee ci armée la la tàqali koo tàmbali min bidaayat min amru lu ma def waaw ma sang toppatoo julle ñu ànd ak man ci lépp kenn waxut ba ñu dugg ci armeele ba ñu denc mané ne yonente bi day bërepp bi denc na ay nit ay sahabaam denc na soxnam ki mu ñëk taxaw ci bàmmeelam ci kaw su moy khadija mu denc ay nit ay domam denc ay sahabaam musul wax jàng leen ñeen fukki ikhlas musul wax def leen fukki ikhlas ak ben musul wax jàng leen inna anzalnahu fi laylatil qadr musul wax jàngale inna a'taynaka al-kawthar waye dal lamu don wax moy istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al rek munum munum yi tàmbale affaire ibadi kenn ku nek nak jóg wallahi armel bi mujj nek nak ben marché bo xamanteni ni la mbokki kon kañ la sunna di def bu fekke boo ne lii la muhammad jàngale kenn ku nek kaas kenn ku nek kaas te kay kaas nak kay wax dula indil makludul serigne dul sëriñ diw xamut lii diw xamut lii waaw yaa kii diw war nañ koo tollal ak Muhammad sallallahu alayhi wa ah kon ñu tollal la ñaari tollawul di kon mbokk yi gis nga yu mel noonu tey mooy fitna yi gën a rëy ci kaw suuf ñu di ko duj du mbokk yi nañ leen góorgóorluwaat ñu nàmmaat tànk yi góorgóorluwaat jàngaat waaye ñu góorgóorluwaat fàttaliku àll bi suñuy mbokk jullit ñu ngi ci àll bi di sànku billaahi ñu ngi leen di réeral wallahi ladi la ilaha gayru alxamis bii ma mujj ma bañ a ñëw fii dem ca caajaay fekk naa fa xale bu jigéen boo xam ne sunnit la na ci biir kër gi muuru bi muy muuru jilbaa bu tax na papaam mer may ko chrétien wallahi ladi la ilaha gayru xamut fu mu koy jaar mu may ko chrétien ngi ci suñu réew mi te bu ma ci wax tey mun naa la wax beneen suba noonu laa la koy toppale benn par benn ñun ñu ngi ñëw ci jàkka yi mais nañ leen ko xeeb nañ leen ko yokk xale yu góor yi da dem jàkka jàkka booy kër gi de ku bëgg mucc ëllëg ci dajjaal dawal nga topp jàkka yi dawal nga julli ji waaye nag dee ci boole jàng dee ci boole jàng gis nga topp borom oto neex na lool waaye bis bu feebaree kuy dawal kan mooy dawal kon nag ñun ñëpp dañoo war a fexe nekk chauffeur mooy nañ leen góorgóorlu yokk njàng mi nañ leen góorgóorlu di yokk suñu alquran waye di yok suñu sunna dina la jox ben règle ba ma la joxon la lay joxat lépp luñ la ni diina la la jar nan la ko muhammad defé won wa la ko abdurrahman ibn awf waxam laay jeexalee kullu ma lam ya'rifu badriyun fa laysa min ad-din wa badar luñu xamul won ci diine bokatul ci diine ci kon jeexna kon ma ngi dénk sa mbokk bokk bëgg sunna yàlla nañ ci yàlla saxal yàlla ci yàlla saxal suñu njabot yàlla ci yàlla saxal suñu nday saxal ci suñu bay saxal ci suñu mbokk ñu góorgóorlu takkoo jàkka yi waaye ñu góorgóorlu nag ci njàng góorgóorlu it nag ci jëfe yàlla nañu yàlla may ixlaas fil qawli wal amal yàlla nañu yàlla may sellal ci wax ak jëf yàlla nañu yàlla musal ci ngistal yàlla nañu yàlla musal ci cheytaane hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa habibina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh